Vous n'aurez besoin d'une conscience pour ça. unissez ndeysaan Bantare mooy fii section féminine Parcelles Assainies daf fi am. kaa leen wooye seen bu ne une prestation de trois minutes. asalaamaaleykum kanamukat yi. ñoo lay dalal ak jàmm te ñu ngi leen leen dalal ak jàmm taxadal. Monsieur Taïba. Monsieur Taïb. yàlla def gis ngeen ko barke démb rek ñu baleen. yéen ñi bu ñu rejeté ko ñu doole waat leen yeneen soixante cinq ñu rejeté waat. di félicité di leen dañ koy wax sax ne ko mu dellu loolu c'est message fort à partir de 15 wax wax léegi ci Kaba Parcelles Assainies moom laa njëkk dëkk ci Ndakaaru bi ma génnee école nationale d'administration en 2001 fii rek fii ci 24 gi dëkk naa fi kon fii dama fee am cër ñu am mbégte bu rëy rëy rëy teew fii nar waxtaan ak yéen lu tuuti nag ci li ñu seet ak li ñu bokk muy Sénégal ma doore wax ji ci li gënoon fës ci suñu combat bi ñuy door ci politique c'était un combat contre la malgouvernance contre la corruption contre les détournements des deniers publics contre l'enrichissement illicite loolu la ñu njëkkoon xàmmee ci suñu xeex mu demoon ba sénégalais yu bëri sax naan moom de day critiquer rek moom de yoole rek la xam moom feeñal rek la xam mais du proposé ñu ne leen lu nekk ak jamonoom bu proposition jotee di ngeen xam ni ñoo fi dàq proposé moo tax keroog bi ñu génnee suñu livre tuddee ko solution pour un Sénégal nouveau defe naa ñoom ñëpp ci la ñu mel ni ñu gees ba tey gi boobu ba léegi dafa mel ni suñu gars yi dafa man dañoo man coow li bëri na waaye ñun dañ leen ne woowu ñu leen ci dàgg santeeg saaganteeg xuloo tamante dëmm. dañoo tëju bind amul benn secteur ci réew mi bu ñu bàyyi ci li ñu bind ne nag dem di leen ngeen tëju su ngeen ko bindee su ngeen ko mënee ngeen dem tëju ngeen bind ah suñu principal adversaire de dem na bind nee na Sénégal au la bind ñu ko doon xaar ci bilan mu ñëw di ñu wax moom bi muy nekk étudiant fan la doon doxantu juróom-ñaari juróom-benni at nga yor ko réew ñu lay xaar ci bilan nga ñëw naan ñu fii laa doon jaar ak pantalon pat de refant laa doon afro laa doon def ak moo tax defe naa livre bi de livre boobu ñoom ñi mu bokkal APR sax duñ ko jënd xam naa dina lamb ci marché bi waaye loolu teewul suñu combat boobu ñu doon mëne pour la bonne gouvernance bàyyeeku ko de c'est pas parce ci jamono proposition te ñu foog ni loolu bàyyi nañ ko tey rek dégg ci média yi seeni mercenaires de la plume ñoom dañoo am ci biir média yi ay mercenaires de la plume et du micro dégg ngeen ci kenn mu naan Sonko pourrait être entendu ci dossier 94 milliards yi moo waxoon ci Mamour Diallo ma ne ko yaa ñàkk jom mu mel ni Sonko yow ku bind procureur ndax man maa bind procureur man ku bind procureur kon su ma naan une nouvelle mooy xeetu poli homme politique bu bees boo xam ne engagé ci politique pour alal wala pour tur wala pour daraja waaye bëgg réew mi xam ni yàlla moo ñu jox Sénégal moom rek lañu ñu am xam ni li ñuy def ñoo ngi koy def pour suñuy doom ak pour suñuy sët bëgg suñu askan am les mêmes privilèges am les mêmes droits am le même niveau de dama bëgg kenn ku ne ci yéen gëm ni ci diir bu gàtt dix ans quinze ans vingt ans mun defar Sénégal ba mu mel ni dëkk yi suñuy rakk ak suñuy doom di jël gaal di fa dem parce que Rwanda ngee en 93 ñi ngi doon joronte ay jaas yi gëm sa bopp ak leadership de qualité mooy defar am réew nañ ko gëm moo tax combat bi ñu leen woo dañoo bëgg kenn ku ne ci yéen def ko combat boppam def ngeen ko déjà parce que ñii ñuy def nii man sama fukki dërëm dugg ci yéen yéenay cotiser yéen a koy def mais dama bëgg lu ngeen doon def benn na ngeen ko def dix parce que un mois et demi moo ñu dese pour ñu dem ci élection yi te élection yi c'est une opportunité historique nga la waaye dañu góorgóorlu ba pour ñu rater cette opportunité là parce que biñ bu ñu bàyyiwaatee Macky Sall mu am deuxième mandat lii mu tàmbale ci jaay réew mi ak pàccoo bi ñuy pàccoo moom ak yi mbokkam ak clam suñ ko bàyyee ba mu yeggali ko keneen ku ñu andi 2024 dina am jafe-jafe pour defaraat réew mi kon dañu gëm ni on a une opportunité historique. c'est pas une histoire de Ousmane Sonko man je ne suis qu'un de ce qu'on doit devra faire C'est une affaire, c'est un projet collectif qui doit nous concerner chacun au niveau, qui demande un engagement particulier et permanent. Nous, c'est à ça qu'on vous appelle. loolu nag bokk na ci li mu laaj bokk na ci li mu laaj mooy élection bi ñu dëgmal caaxaan du ko gañe de parce que Macky Sall ak gàngooram ils a passé en force bu leen dégg ñu ne Ousmane Ousmane Sonko jàll na parrainage bi rek ngeen ne ça y est ça n'y est pas ba nii mooy wax ak ñoom ni bis bu ne ñu ngay te la ñuy waxante chaque jour ma jot ci ñu ngay ci ay pexe ñu war a tëral ba Ousmane Sonko du doon candidat moo tax ñu ne leen moo tax ñu ne leen restez vigilants kenn ku ne ci yéen na na rester vigilant parce dafa am loo xam ne duñ ko nangu Macky Sall faw 2019 ñu jàmmarloog moom loolu lu mënul ñàkk la parce que c'est une demande sociale et populaire ñun suñu candidature c'est une demande sociale et populaire c'est une demande de la jeunesse c'est une demande des élites intellectuelles c'est une demande des milieux woo te muy lu élémentaire ci démocratie mooy na ñëw ñu débat bu campagne bi dooree kuy candidat may candidat keneen du candidat ñun ñëpp candidat yi dañoo war a ñëw débat ku nekk andi projet bu ko neexee mu ndaw waaye tere ñu ñu doon candidat loolu mënatul am Sénégal ala kulli alim insha rabbi dinañ doon candidat te dina doon candidat nag boo xam ne moo koy tere nelaw moom Macky soobee yàlla waaye dama bëgg chacun d'entre vous et chacune d'entre vous il faut rester vigilant tey yi mu teg pour war a sàcc élection yi mooy carte électeur yi mu téye bañ koo joxe te tegu ko fenn parce que moom ëppul droit nem sénégalais bu ne moom ëpp ko droit pour voter ji doomam wala jabaram wala ministre de l'intérieur ëpp ñu droit tous les autres Sénégalais à, à aller parce que c'est un droit civique constitution moo ko jox Sénégalais bu ne lii mu def jël ay jeunes parce que jeunes yi la gën a ragal surtout les primo inscrits jox leen seen carte d'identité ba pare ñu bind ci gannaaw li ñoom amuñu droit voter te loolu fan na ko teg lu ñu war a bañ na lii mu téye fichier électoral bi ne du ko jox waa opposition lu ñu war a bañ na lii mu bëgg a jël élection yi jox ko Aly Ngouille Ndiaye nga xam ne njuuj njaaj bu am ci suñu ressource naturelle moom moo ko def kooku matul sax organiser élection village wax wala élection présidentielle loolu waruñu koo nangu yii yëpp nag ma tudd yii yëpp nag ma tudd li tax ma ma tudd ko mooy dañoo bëgg ëllëg bu opposition wootee pour de grandes manifestations yéen ñëpp na ngeen génn toog ci ay salon di naan ataay di kaas jeex na Sénégal Macky Sall moomul réew mi donn ko Sénégalais ñoo moom réew niñ ko wóolu woon ba jox ko dañoo bëgg mu am ngor am dignité ba su jotee nañu organiser élection libre et transparente bu dee moom la Sénégalais yi tànn ñu xam ni mooma waaye bu dee moom mu abal ñu bàyyi ñeneen jël réew bi defar ko c' est tout ce qu'on demande à Macky Sall léegi nag pour ñu am ko nag neewoon naa leen baadoola kenn du ko dégg njoowaan parce que ni ko bëgg a àjji mu jafe foo jaar di nga xeex ak moom Macky Sall il va falloir qu'on se batte avec lui moo tax kenn ku ne ci yéen ñi ngeen defee mobilisation macha allah ëllëg bu ñu wootee place de l'Obélisque parce que Macky Sall va les élections wala il veut éliminer les adversaires dañoo bëgg yéen ñëpp ngeen génn massivement amul góor amul jigéen amul ndaw amul mag le bu où un million de sénégalais sortiront Macky Sall dina génne carte d'identité delloo ko seen borom loolu lañ leen bëgg a ñaan na ngeen ci farlu kon lii laa bëggoon waxtaan ak yéen di wax ni kontaan nañu trop ci mobilisation bi leen wax tamit ni. va mener ce combat. C'est ensemble qu'on va gagner. C'est ensemble qu'on